insertion en quelque sorte comme ni ma ko waxee ànd ci ak une équipe vraiment dévouée bi nga xam ne aussi ñoo nekk ñi seen kanam ñii di équipe bu génération Sali bi au niveau national de même que équipe bu Xidma Seen Tey toog nii ci kanam. lii mooy li wundu mbir mi waaw su ma juumul ñu bari ci yéen xàmmee nañ ñu ñëw nañ fa suñu mbokk Hizbut Tarqiyyah ñu ngi fi ak ñeneen ak ñeneen collectivité territoriale yoo xam ne jot nañu liggéey ak ñoom ci wàllu woowu. sëñ Youssou dara nañu ko ñoom it di jël suñu nuyoo di ko teg seen loxo yéen ñëpp rek pour ngeen tegal ñu ko ci loxoy ñooñu. lii mooy li nga xam ne moom moo wëndu génération Sali xam naa bu ñu libéré ambassadeur bi sax ñun ñu ci suñu biir dinañ defaat quelques partages bu ko defee ñu gën a gisee gën a xamante bu baax a baax waaw j'en profite aussi pour sant bu baax a baax le coordonnateur de Touba ngeen tàcc ko bu baax a baax monsieur Ibrahima Ba qui a réussi cette belle organisation machallah avec son équipe de de de de Touba donc c'est lui qui nous représente ici incha allah xam naa ne du ñàkk yow kilifa yi fi daje yëpp rek ñu gën a xamante wasalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi tudd Osamu Izawa ambassadeur de Japon ci Sénégal um, maa ngi leen di nuyu di am mbégte ànd ak kentaay ci xew-xew bu ab solo ci wàllu uh, contrat bu projet bu tabax uh, centre uh, centre jàngale métier ci wàllu mbay ak ensemble Ungil, Undal, pays Touba. Gouvernement du Japon, Mokodef, Chikadural, Chikadural, Jimbal, Jimbal, Ungil, Chikadural, Ungil, et Sohori Nitni. Sohori Nitni. proje kontra, kontrabi todo naci 46 Nientifuk Jérôme Bene, Midea CFA Franc, Ungir Tabaf Centre Djangale Métier. Ci centre bi Danjoj, Danjoj, Jangal, 180. Temer ak Julom Niet Fuk Undal. Dina Dina Taf Ba Mu Dina Taf Mu 왕이 략리게이 은다위 대욕 은바이 악 삼부 디 투바 자폰 야그나 짐바리 세네갈 은길 욕대 장가레 장가레 메티에 Îndar ei, ndax dau i ñoi yakaru leumi. Barama jahel japonais i gino nage dano dano jige sénégalais i sénégalais i dano jige japonais i. Japon ak senegal ay harit la yaakaar naa ni projet bi dina mën a gën a dëgëral dëgëral xarit Japon ak Sénégal mhm.